mbokki internet li nag jàmm seen chaîne youtube Buzz 24 Sénégal ba tey ñu daal di wéet ak yéen ci xibaar yi ah, bokk na si jàmmarloo yu métti yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku foofule ca marché Sandaga ah, diggante nag marchand ambulant yi nga xamante ni ñëw fay liggéey ak agent yi gannaaw nag bi nga xamante ni dañ nañoo jël ab ndogal ngir rek daj leen yëkkati fi nga xam ne rek foofee la ñu nekkoon mu nekk nag loo xamante ni rek dañ dafa indi ab coow bu bëri gannaaw boobule ndogal bi nga xamante ni rek dañ nañ koy jël ñu daal di yëkkati les marchand ambulant yi foofulee ca marché bu Sandaga tax nag marchand ambulant yi ñoom mer bu fudd la ñu daal di def loolee nag jamono jilee mu daal jur ay jàmmarloo diggante ak marchand ambulant yi ak agent yi ñu daal di siy nemmeeku ñenn ñoo xamante ni rek dañ nañ siy jëlee ay gaañu gaañu ci seen ay kàddu ñoom marchand ambulant yi ñu xam leen rek duñ fa jugee benn yoon te nag ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ak kile di Bassirou Diomaye fay def leen wor ndax nag liggéey lañu ñu diggante ak bopp réew mu Sénégal waaye nag mu mel ni rek dañoo tas seen yaakaar tax nag ñu daal di nemmeeku rek ñu bari ñoo xamante ni ñoo ngi ñàkk seen bakkan ci gaal yi nekk nag ay kàddu yoo xamante ni yooyu les ko yëkkati jëmale ko nag ci gouvernement bu yees bi nga xamante ni rek moo fi nekk jamono ojile ba tey ñu àddu ci beneen xibaar bokk na si ab drame bi nga xamante ni dañ lay am foofulee ca diwaanu Mbacké nekk nag ab benn chauffeur taximan muy wuyoo ci turu Abdou Mbaye moomee nag dañ ko ko rek fekk mu ñàkk bakkanam en pleine ville bu ñu sukkandikoo suñu ay naataango di Dakar Actu ñoo xam ne ne rek yooyu les témoins dañ nañoo évoqué une mort subite li jëm ci mbirum enquête bi ñi nga xamante ni rek ñooy membre de la famille ci gilee di Abdou Mbaye ñooñu rek dañ nañ leen kon ñu daal di indi ay leeral jëm ci mbir moomee bu ñu sukkandikoo ba tey ci boobule même source ma ngay xam ne ni rek boobule corps sans vie dañ nañ koy déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba waa groupe bés Thiès 24 Sénégal di ko ñaanal moom Abdou mbay mi nga xamante ne rek dañ ne ñakk ba kanam ba suñu borom yërëm ko te xaree ko àjjana fii daw si mbokk yi nekkoon boobule xibaar bi leen indiloon ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé waaye tamit ngeen bës cloche de notification bi ngir ngeen di mën a jot suñu ay xibaar saa su ne jërë ngeen jëf.